ay rabi àll rek fi nekkoon ak i garab yi dédd sëriñ Touba ñëw fàkk ko ngir bëgg fee wéetal yàlla jàngal fi doomi jullit ñi yar leen ci diine loolu nag wax na ko ci biir xasida boobu yëpp ak ni mu bëgg dëkk bi mel ni te lu bari lu waxoon ne dëkk bi dana ko mel tey jii ku xool teg nga ci sa bët euh, ndax waxoon na ne adduxuka an tajxalahu daara tuxa wal ilmi wa diini wa daaral irtixa mu ne woon mi ngi ñaan boroomam mu defal ko muy dëkk boo xam ne dëkkub xam-xam lay doon dëkkub diine lay doon ak dëkk boo xam ne eh, képp ku fi dëkk danga jëfandikoo loo xam ne lii lu baax lay doon ba suñu borom man laa yéege nga xam ne daal nee na ku fi dëkk dafa xalaat ne war ngaa dafay nekk dëkku xam-xam di dëkkub ragal yàlla di dëkkub diine ndax loolu ci la la suñu borom mën a yéegee nga àgg ca martaba yu kawe. nekk na itam mu ne dëkk la boo xam ne bii euh, képp ku fi bëgg lu baax wala nga bëgg fee jariñoo mën nga fee jariñoo waaye nag keneen koo xam ne kii ab safaan nga fi bëgg a indi nee na bu boobaa loola am na leneen lu koy fekk ba du agsi nee na itam dëkk la boo xam ne bii day bijji mboolem aw yiw di ko xëcc di ko indi ci dëkk bi maanaam nit bu fi nekkee tey mën nay am lu muy xéewloo di ko jariñoo te du sonn lu ne toll wa maskanan li jalbi kulli xayri waaye wa maskanan li dafi kulli dayri nee na it noonu la nekk dëkk boo xam ne euh, dafay fekk di jañ képp ku yor lor te bëgg ko fee dugal nee na loolu moom it euh, dëkk bi du ko nangu euh, dellu wax ne it suuf la soo xam ne siide yi suufu su wërsëg lay doon nga xam ne ku fi dëkk man ngay am koom moo xam ne mii wóor na la ne liggéeyoo lu ne toll te yaa ngi koy am te loolu yaakaar naa ñu bari dund nañ ko ñaari kër goo fi dugg mbooloo nga fay fekk te kenn nit a leen di dundal te seen dara du manqué te mbooloo moomee daanaka doo jis fenn fu ñuy xëy mbaa ñu fay gont te teewul euh, du ñu xiif duñu ñu mar mu ne woon dëkk la boobu xam ne daal wërsëg woowu dana fi bari euh, nee na it wàllu sécurité nee na dafay am kon lu ñu fi manqué leer ñoo xam ne ci kanam mi ngi ñëw ndax nee na moom lu mu wax lu nekk sëñu koo ñaan yàlla te fekkul suñu borom nangul ko ko ba noppi nee na moo tax ci biir xam da nga dégg mu mel ne kuy ñaan yàlla waaye nee na dama koy tegginal samay wax ndax yàlla kenn du ko forcer waaye nee na rus na maa ñaan yàlla lu ma mayul ba noppi nee na dëkk la boo xam ne dëkk bu baaxu am yërmande la te sécurité boobu mu weesu léegi boo ko xoolee tey Touba li fi nekk te sécurité ci wàllu saayir bariwu fi noonu lu mën a aar mbooloo mi fi nekk te bunt yi bari na bunt boo duggee mën ngaa génne ba ca des te mën ngaa daw ci biir dëkk bi 10 kilomètres doo ko génn te mbooloo mi it di jokkalante ci marché yeeg lu nekk ay alal yu du jeex par jour euh, loolu te da nga gis koo xam ne sax ci keesu carton lay fob ay millions def ko ci waaxu wuti banque du dugg oto du def dara euh, di ko ca verse ji te loolu kenn déggagul ñu rey ci kenn ngir nangu alalam ci loolu te manoon nañ bis bu set ni fi mbir yi demee te sécurité bi matewu ko noonu bis bu set ñu dégg ne rey nañ fi nit nangu nañ alalam kon loolu sécurité boobu mu ñaanale woon am na ci dëkku yërmande lay lay doon it moo taxoon mu ne wa ardahu xal risqin wa amaan wa rahmatin wa saxatin kulla awaan kon loolu gis nañ ne eh, lu lu fi nekk la boo gisee ñu bari sax di toxoo ci ay dëkk ñëw di fi sanc si eh, dañoo yëg loolu yëg ne njaboot gu fi dëkk eh, la ngay dundalee nit ci beneen dëkk ci benn bis bu dee fii mën naa teg ay fan yu tegaloo yu baree bari ndax waroo giñ waroo ci wàllu dundin wi kon jàpp ndal googu sëriñ bi def ko fi am na fi kon kooku kon sañ naa wax ne kat ginnaaw bu mu defee dëkk bi titre foncier sañ naa wax ne dëkk bi kër la ci moom ndax titre foncier bi fi mu ne ku fi tabax këru 100 millions wala 300 millions it peen ba nga moom mais boo xoolee la la jotale ca loola mënta weesu kayitu acte de vente bu fekkee loo jënd la waaye kayit wuy wane ne titre foncier bi am nga ko wala nga ne naa dem lijjanti ji ko feneen mënta nekk ndax titre foncier yi ci kaw titre yi mën la jàppandi loolu sax misaal bi ma leen ciy jox mooy banque yi nekk ci dëkk bi tey euh, lu sa kër seer seer seer moom mënuñoo doyloo sa kayitu kër googa ba lebal la sax juróomi million su fekkonte ne këru 200 million nga fi tabax du ñu la wóolu ci wenn kayit woo leen mën a présenté ci sa kër bañ di la lebal 5 millions kon loolu nga xam ne kon ci kër jàmbur nga tabax suufus jàmbur ci nga liggéey moo taxoon euh, ni Safinatul Amaan tëddee nag nga xam ne ku fi mag ci sëti Serigne Touba yi yaa koy jiite nekk président d'honneur bi bi mu tàmbalee ci Serigne Aliou Mbacké yal na yàlla yokk yërmandeem di doomu Serigne Mouhamadul Moustapha première xalif jaar ci Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacké Fadil jaar ci Serigne Mouhamadul Amin Baram Fadil jaar ci Serigne Sidil Makhtar ba ci sëriñ Muntaxa tey mii nga xam ne ñi ngi ñaan yàlla mu yàggal ko fi te may ko wér di ko ndokkeel ci màggal gi ñu dëgmal doon koo xam ne sëfinatul amaan daf koo ñor lool ndax bi muy door a toog rek daf maa wax ne ma day li ñu war a taxawee mooy nañ wax ak ñi jub waaye ñi dëng moom dañoo war a jëflanteek ñoom ba tax na bi mu toogeek léegi renforcer na sëfinatul amaan ci ay moyens yu ñuy déplacé woog yëpp mi ngi ñuy jàppale ci biir ak ci biti waxtu wu it noonu rek lay déglu ci loolu moo tax ci jamono yi weesu euh, njiitu réew mi ñëwoon fi mu yeesalaatal ko tere yooyu ñuy tere ci dëkk bi am yeneen yum ci dool ndax xam ngeen ne jamono day dox euh, jamono bu nekk am na yuy génn yoo xam ne jamono ju njëkk ca amu ca woon muy ci wàll yëpp yooyu nag mu waat ko ngir ñu dolli ko ci ndax sëriñ Abdou Lahad ba mu teree sëñ Saaliw bi mu ñëwee am na yum ci dolli jébbal ñu ko sëriñ Mouhamadul Muntaxa mi itam am na yum ci dolliwaat yoo xam ne dafa méngook jamono ji ñu di ko def te yooyu yëpp moo tere yee ñoo yemub atte moo tax mu waxoon ko njiitu réew mi ak ñi koy jàppale ngir ñoom it ñu gën cee mën a jàpp ci noonu waxtu ñu leen soxlaa ndax na ci loo xam ne Safinatul Amaan bu koy liggéey ba àgg fenn fi la ca des police ko mën a eggale wala gendarmerie loolu it la cay seen àq ak seen cër nun duñ leen ko xañ moo tax waxtu wu ñu leen soxlaa ci wàll woowu dañuy daal di jokkoo ak ñoom ngir ñu jàpp ci liggéey bi Euh, loolu daal ci tënk ak di déglu question yi ngeen ciy posé mooy li nga xam ne tënk nañ ko ci mbiru Safinatul Amaan boobu waaw liggéey bi ci bi ko sëriñ bi dollee noonu gën koo yeesal dañoo xalaat ne euh, nit ñi dëkkuñ ci mbedd mi ba tax na du ci agéenu dañuy jóg rek tase nit ci mbedd mi di ko fitnaal wala di ko sonal kon ñu ne nañ dellu ci njàngale mi sensibiliser nit ñi xamal leen waaw ñu xam ne kër gu nekk euh, boo fa bu fa nit jógee ne ci mbedd mi ci kër la jóge te kër googee mu jóge bàyyi na fa kilifa kilifaam mooy way juram wala borom këram bu dee jigéen euh, bu dee góore it bàyyi na fa magam wala baayam ñu nekkoon léegi nañ dellu ci biir kër yi def fa am njàngale ak waxtaan ndax damay faral di wax ne nit ki loo bëgg a def ci moom fexeel ba mu rus la ndax bu la rusee dana la déglu te mën naa am loo def ci moom dana yeex a génn ndax bu la gisatut it xelam nekk ci waaye bu dee da fexe mu ragal la rek ci melo ko wan saa yu la noppee gis dellu ca lam newoon kon nga xam ne doomu aadama ni muy ragale yàlla ak ni muy ragale nit du benn yàlla yaa ngi ko gëm ci li ko li alquran indi wax ko nga gëm ne yàllaa ko wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jottali ko kon loola boobu ngëm-ngëm bokkul ak bi nit euh, ni ngay ragale yàlla foofu bokkul ak ni ngay ragale doomu aadama bari na koo xam ne ragal nga ko waaye soo ko gisul rek mën ngaa dellu ca lam la doon tere moo tax nu ne nañ fexe ba xamal nit ñi ndax dañoo jàpp ne nit a ngi def loo xam ne da ciy loru sax te ñàkk xama ko ko teg ndax ñu ci bari jàngaluñ leen néewaa a nga gis koo xam ne jàngal nañ ko diine muy ci jigéen ñi wala ñu mel noonu ba mu xam àgg benn néew bi ba noppi di jëf yenn yi ndax njàngam moo ko may ak fi xelam toll ak xam-xamam waaye koo xam ne nag foofu fépp jaarale la fa ba nga xëy di magum jëmm euh, da ngay réere lu bari moo tax nag ñu jëloon xalaatu dëkk bi li muy rëy rëy ak li quartier yi bari bari ñu ne daal léegi nañ fexe ba weer wu nekk ñu tànn ñetti quartier datub la cinq la 15 la cinq ñetti quartier yooyu buñ cay dem day fekk kilifa diine ga fa féete ndax bari na ci quartier ñoo xam ne ay doomi kilifaa fa dëkk ñooñu dañ leen di yëgal ñu woo imaam ba fa nekk ak délégué de ba ñu woo population ba nekk foofu yëpp entre 17h ba 19h délégation Safinatul Amaan dem fa ñu waxtaan ak nit ñi fàttali leen tere yi ak li tax sëñ bi tere ko ñoo xam ne seen intérêt nekku ci jàngal leen ci lu baree bari euh, gën a ñaaxit euh, kilifa yi bañ xam ne ku ci sa doom di génnati nara sol lenn li wala mu yor wenn melokaan wi nga teel a wax ak moom ndax gis nañ ne kër gu ci nekk la ca biir kër ga bu jagee rek mbedd mi duutu am luñ ci naqarlu te bu boobaa euh, ñi ngay dox ba taseeg ñoom di leen corriger sax day jafe moo tax ñu jëloon méthode boobu di ci liggéey ba fi mu ne ñu ngi ciy sori gis nañ ci ay résultat yu baax itam euh, ñaare daal euh, koo ci gis rek muy wax ne am na lu mu joteeg ñoom dañ laa jox avertissement ñaari yoon ba ko ñetteel nag bu fekkente ne gisaat nañ la ci loolu mooy waral ñu sanctionné la Euh, yu mel noonu nag buñ sañoon duñ tëb tëb sax daal di yóbbu nit ki police wala gendarmerie wala fañ taxaw ñu woo police wala ñu woo gendarmerie ndax lañuy ñuy njëkk a def dañuy jàpp ne jàpp geeg fitnaal géeg tëj gi fajul loolu li koy faj mooy waxtaan ba nit ki duutu ko def loolu moo ëpp solo sonal ko fitnaal ko bu ëllëgee mu dellu ci kon day mel ne tàmbaliwaat nga sero moo tax euh, loolu daal lañ njëkkee pour xamal nit ñi ku dem nag ba bëgg a na lii mënuma ko fee ñàkk a def bu keroogee nag la sëñ Saliou waxoon daal di ñëw sëñ Saliou dafa maa mas a wax ne ma moom daal képp koo xam ne eh, bëgg ngaa jalgati njàngaleem sëriñ Touba bëgg fee def loo xam ne diine lislaam da koo tere la ma gënal mooy nga génn dëkk bi ndax soo génnee dëkk bi sama yoon nekkatu ci waaye nag soo nekkee ci dëkk bi nag bëgg a nag da nga ko fi def war naa taxaw nag ñu war nañoo taxaw saytu loolu ndax ci kër jàmbur nga nekk te nit nag lu mu bëggul ci këram Euh, def ko fa ak tooñ la loolu moo moo nekkoon moo taxoon sëñ Sidi Maxtaar moom ci nekkam mu waxoon ma ne ma daal ndegeem suuf si ah, sëriñ Tuubaa ko moom titre foncier bi ku fi tabax kër lu kër ga taaru taaroog lu mu rëy rëy bu fetteerloo bëgg faa def loo xam ne lii lu naqar yàlla la euh, kooko man pare naa pour ñu xayma kër ga buñ ko waree remboursé alali taalibe yi fi sëriñ tu taalibe yi indi ngir sëriñ Tuubaa ma tibb ci fay loola tañ nangu kër ga loolu àggoon nañ ci nga xam ne dañoo jëloon décision sax bu loolu amee it kuñ ko jël ñu jox ko jàngalekati alquran yi ñi nga xam ne dañuy jàngale alquran te dañuy luye wala ñuy àbb bu boobaa ñoom ku leen ko jox diirub ñuy jàngale alquran euh, moom dana baax ci ñoom euh, loolu it nag ba léegi si euh, moom la sëriñ bii fi nekkit fedd li muy sëriñ Mouhamadul Muntaxa moom waxtu wu nekk saa yu ma gisee rek lu ñu lu gisee yi jege jege faaw mu laaj ma liggéey bi fu mu toll ak eh, fan lañ ci toll ak nu muy doxee mu di ko béggee ndax dafay wax ne moom jàpp na la liggéey boobu benn waru koo jiitu ci yoon wi ndax mooy liggéeyal Serigne Touba dëgg-dëgg ndax jikko yee ko taxoon a jóg. Euh, hormis hormis sensibilisation nga baal ma daaneel hormis safinatul amaan dafa naqare xam da nga dëkk nit te doo xam ne kii membre safinatul amaan la même ci benn kër ci benn koñ te doo xam ne kii membre safinatul amaan la ndax li ñu bëgg rek bu la nit ki feeñoo ci wax la dara sax nga ne ko ana sa carte carte membre bi moo lay tegtal ne kii membre safinatul amaan la bu ko defee foofu xàmmee ci ki ki lay ki lay contrôler day jafe te dañuy wax ne boo dëkkeek nit sax mën nga koo signalé te kooku du yëg na yow yaa ko signalé ndax àqi dëkkandoo ji dañ ko ci sàmm mu ki nga dëkkal genn kër wala ki nga dëkkal ci benn quartier am na noo xam ne fii jamono toll boo duggee ci benn néeg tëju woote téléphone yow dañuy bëgg yow ña nga dëkkal sax buñ xam ne yow yaa signalé mbir mi dañuy bëgg nga effacé wu woo membre Safinatoul Amane yoo xam ne ñooñu dañuy toog toog rek gis ñu ne jàll agsi daal di fekk na nag loola it dañ ci am preuve ndax avant loolu ñuy ñëwee noonu dafa am loo xam ne euh, ci biir garde recherche lañ nekk ñooñu la ñuy yebal ñu xool ba xam kii lii mu wax euh, dafay def règlement de compte wala lan la ndax loolu it duñ ko ci def ku meroog nit wala nga am ak nit jafe-jafe daal di koy kereyal dara pour ne dama koy booleeg waa safinatul amaan loolu it duñ ci dox moo tax it dañuy gëstu te loolu léeg-léeg ñu gis ko nit wa yëgle dara ñu topp ko ba ci biir gis ne am na lu mu séqoon ak kooku moo tax mu ko doon fexeel loolu te loolu duñ ci ànd ak kenn bu ko defee dañ koy teeylu ndànk ba gëstu ko ba mu leer léeg-léeg sax bu dee loo xam ne lu ñuy tuumaa nit la lu muy jëfandikoo lu mel ni ki yàmba ak sàngara ak yu ni demee da nga gis gaa yi sax am ci kuñ dem ba war koo teg loxo jot ñu bàyyi ko mel ni ku ci amut soxla pour gën a gën a amaat beneen firnde bu wér boo xam ne bu boobaa mm, du mën a teggi loolu am nañ ko fi ñoo xam ne bañ demee ba am ay preuve ba léegi si mënatuñoo weddi ndax jumtukaay yi ci war yëpp def nañ ko fa tabarakallah moo tax liggéey boobu moom amuñ ci jafe-jafe waaw luñ dégg daal danañ ko topp ba mu leer bu ñu ko leeree it ñu jéem a delloo si kooku su tee nag ñu door a jël matuwaay yi ci war.